ñaari téeméer ci ay sëriñ daara la Touba ca kanam doon jébbal seen ay lijaasa ànd ko ak commission scientifique bu Touba ca kanam ginnaaw bi mu leen tàggatee ci ñeenti matières yi nga xamante si ni ab sëriñ daara bu bëgg a jàngale alxuraanu karim mënu koo ñàkk ci biir daara ji. dañoo toog waxtaanee ko ci commission bi euh, ba ñëpp juboo ci ne matière am na ci ñeent yoo xam ne mënut a ñàkk ngir ñu former ci sëriñ daara ngir mu mën a am capacité mën a jàngale bi ci njëkk mooy tajwiid ku xam ne tajwiid moom alxuraan mënoo koo jàng te tajwiidoo ko ndax yàlla dafa wax alxuraan boo ko jàng na ko tartiir la wax tartiir nag mooy taj wit tajwid tajwid du neexal baat du naaral waaye mooy jàng alxuraan jàng mu wér bi ci topp mooy ilmu nafs at tarbawi mooy nga mën a xam psychologie xale bi ba boo ko jàngal nga mën a xam xale yi mooy seen wuute ba kii di gaaw mokkal kii du gaaw a mokkal kii gaaw a mer kii du mel noonu bi topp mooy al idaara al madrasiya ñu xam ne daara alxuraan société la entreprise la dafa am ay nit am matière bu ñu bëgg a transformé def ko ci ay nit am ñu ko war a transformé ñooñu nag bu ñu jàngul matière bu ñu tuddee idaara madrasiya naa jafe ci ñoom bu topp mooy ilmu naf euh, mooy euh, mooy turuqu tahfiz nga xam ne mooy tax kiy jàngale mën am programme boo xam ne bu ko tegee ci daaraam dalal ab donga bu bees mën naa natt nakat kii bu jàngee ab diir donte ñeenti at wala fukki juróomi at dana mokk alxuraan karim bu fekkee ne dafa nekk xelam dafa nekk xel mu mutawasit ak yu mel noonu loolu moo koy xamal lu mel noonu waaye tamit ci biir ñu amoon ci ñaari yoo xam ne nii dafa waroon nekk matière mooy wàllu santé ak wàllu droit ñu ne ko mbokk ci nañuy def sax bu ñu jàngee ñaari semaine ñu woo sëñ daara yi dafa leen conférence ci wàllu woowu defoon nañ ci benn ci wàllu santé euh, ànd ceeg euh, docteur boo xam ne wax dëgg yàlla tubaarkàlla euh, Silla mu defoon ci waxtaan yu am solo ginnaaw bi ñu def beneen ci wàllu loi ànduñ ci ak maître Mbaye moom it macha allah tabaarakallaa noonu la demee woon te incha allah ñoo ngi bëgg ab jëm gàtt rek jotaa jotaa beneen muy ñeenteel jëm dañoo bëgg daal si ndaar bu nekk Touba bu mën a doon te ba sax ñu def ci leneen loo xam ne day passé loolu sax ba sax ma yokk sa ne boo liggéey bu ñu gisee kat matière sëñ daara yi matière yi doyu leen woon léegi ñëpp am nañ ñu yokkali matière yeneen ngir yokkal leen seen seen capacité seen xam-xam incha allah dem fas nañu daal benn sëñ daara du toog Touba di fi jàngale te amu formation. liggéey bu am solo boobule ak Serigne Daara yi ko Touba ca kanam àndaloon lépp Touba ca kanam moom moo ko jël en charge Serigne Mamour mi jiite commission scientifique bi lee dellusiwaat na ci budget bi commission scientifique am ci Touba ca kanam waaye di sàkku ñu yokk ko ngir Daara alxuraanul karim yi lee. mu tàmbalee ba léegi lépp lu ci information lépp lu mën a doon lépp rek kiy jàng dara waru ko ci Touba kanam mooy def lépp même sax di leen jox café ñuy naan di leen jox ndox ñuy naan te lépp c'est gratuit. li nga xam ne it moom tamit la ñuy jox ñi jàngale man ko tuddee xëy na paas ndax kenn fayu leen mënuñu leen a fay waaye paas lañ ko tuddee ñoom it dafa rëy ci ñoom lool. loolu tam lépp boo ko boolee tubaab kam lépp lépp lépp moo ko jox xam daal dañoo budget boo xam ne budget formation la tudd dañuy jàngat ba jàngat ne que lii lépp lépp lu ñu war a def nangam moo koy def tubaab kanam mooy génn lépp financé ci poosam kenn du ko jàppale benn dërëm. daaw euh, ñi ngi woon ci quatre nangam millions. ren ji nag romb na 100 millions tuuti waaye teewul nag xeeb nañ ko bu baax a baax a baax ñu bëggoon nañ lu mu gàtt gàtt ñu am 300 millions ndax li ñu liggéeyee xaaj bi lii mën ko liggéey waaw kon te am nañ ci yaakaar nag ndax ñoo ngi koy dëgaan di ko leeral Touba Ca Kanam ñu gën a jàppale jàng surtout alxuraan wax dëgg yàlla jéego yi am na solo ma am na solo lool lool waaye nag xaajul bay doy dañoo bëggoon yitte bi ñu jox lu ma doon moo moo xam garab la moo xam mbedd la moo xam tëdd la jox ko alxuraan daara ndax garab mën naa ñàkk ba pare nit baax waaye jàng bu jàng ñàkkul bu ñàkkee nit mënut a baax kon nañ bàyyi xel loolu bu baax a baax a baax te xam ne daal ñoo ngi tàllal loxo di leen dinañ ci sensibiliser ñoom ñoom ñëpp ñu bàyyi gën bàyyi xel daara. loolu lee di lenn ci projet yi commission scientifique bu Touba ca kanam am waaye yemul ci loolu am na yeneen projet yoo xamante si ni commission scientifique bu Touba ca kanam fës na ko yéene ànd ak sëriñ daara yi lee am nañu ñaari mbëbët benn bi mooy carte de santé. ñaareel bi mooy li ñuy wax pôle d' avocat nga xam ne même sax ba léegi am nañ avocat yoo xam ne ñoom nekk nañ volontaire ngir pare ngir ñu taxawal waaye ba léegi nag taxawagut waaye dañu bëgg daal boo xam ne day nekk avocat yoo ne kenn du fay dara waaye Touba Ça Kanam moo leen di engagé sëñ daara bépp boo am jafe-jafe ak wàllu yoon nga woor ñu ñëw taxawu ko ba boo am ca ndam te dootu joxe benn dërëm sëñ daara yëpp lañ ko jagleel nag foofu buñ ci àggee jàmm incha allah rabbi loolu tam ñoo ngi ci te jàpp nañ ne bu ci yàlla defee tawfeex mën naa am bala yàgg dana jàpp nañ ko ci mooy tabax ab centre boobu léegi ñii ñëpp ñoo ngi ko jàmbat loolu tamit nañ ko bàyyi xel bu baax a baax a baax bu ko defee ñu bëggee formé nga xam ne su boobaa sax mën nañu formé ci xam ne moom bu génn rek am na am na bu leen xaar loolu nag centre dong ko kon ñoo ngi ci fàttali ci kanam bu baax a baax loolu lépp ñu jàpp ci bu baax a baax ngir lépp ñu mën koo formé ci ni ñu ko soxla banqaas yu am solo yu bëree bëri dañu ñu nemmeeku ni Touba ci kanam dugal na ci loxoom bu baax a baax ngir développement dëkk bu sell bi di Touba Touba ci kanam laaj lu ñu mën def fu ñu xam.